مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار Here we go. Here we go. Here we go. اعتدال على ثاني أولا اعتدال ولا ثاني فيبدأ عن ذلك عن ذلك صدمتك بيع القرآن بلا بيع القرآن بلا toujours maanaam yéene dal la kon dafa mel ni maa ngi seen ndongo yi ne ñi ngi dugg si macha allah ñu sant moo ñu moom te am na ko jàng alxuraan rek soo ci ban bi lay ñooñu moom ci bañ di lay ñii jullit la ñuy mi tey noonu ngoo seeni doom yi jàngagul amee daara yàlla ci tey ñoo ngi sant yàlla tey tey moo ñu moom am na tey moo ñu moom am na tey dongo bu ñuy wax Serigne Bara Sy Serigne Bara Sy moom moo war a ubbi jotaay bi ci alquranul karim moom nag xaari la maanaam boo déggee xari mooy jàngkatu alquran boo xamante ni mokkal na ko bu baax waaye it neex baat moom foo ko nat yegg na fa kon nag dañuy def le tout rek teewlu ko mu jàngal ñu lenn ci alxuraanul karim ndax jotaayu alxuraan alxuraan rekk a ko ubbi rek moo koy ubbi ndax sëñ xaadim a ngi nii ci sama wet di ustaas dongo yi xam naa ni parents yi moom la ñuy gën a xam kon nag bu ko defee ñu jox sëñ xaadim mu tijji te jox sëriñ baara kon nee na nañ jox sëriñ baara فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di ndokkeel ñi nga xam ni ñoo fi teew ak woote bi ñu wootee mu woote bi alquranul karim ndongo yi nag teew nan ci bis bi ak seeni wayjur yi nga xam ni ñoo leen indi woon ci daara ji ngir ñu jàng alquranul karim yàlla dogal nag ñu ëpp nag teew nan ak leneen ci mbokki taalibe yi nga xam ne ay wëlëra lan teew nan liñ bëgg nag mooy képp koo xamante ne ji saa borom dogal na nga am doom ci daara ji bëgg na insha allahu taala bu ñu ko joxee mu fekk fi loolu nag moo yéene ji ñu am ci bis bi bis bi yaakaar naa ni ku fi ñëw ak ñi ñu ko tàmbalee yaakaar naa dangay xam ne bés bii am na ak coppatiku daa am loo xam nag jëmm ju baax ji monsieur Masseye Gueye moo ko yor waaye yàlla dogal na daara ji ñu jàngalee alquran dafa am ku ñu wax solo ndey ami Jóob mokkale alxuraan ci daara ji xam nga mokkal moom yombul mokkal ak wàcc alxuraan nag dañoo bokkut nit ki mën naa wàcc te du mokkal waaye mën naa wàcc ba noppi daal di mokkal alxuraan loolu mooy toppaat doo mokkal ko doo ko tari yàlla dogal na nag mu toog nii mokkal alxuraan lool macha allah rabbi jàng fi ci daara ji kon ne xam na ni nag jàng alxuraan ak yombul nit nag su fekkee ni bu mokkal na alxuraanul karim laaj ko la mu daj ci daara ja ba mokkal alxuraan alxuraan nag ay caaxaan da koo mayewul ay fo da koo mayewul faw nga xaw a dee doog a mën alxuraanul karim ko su ab laxat si ñu ngi lay ndokkeel yow yaay bés bi bés bi nag mooy yow li ko waral nag mooy daara ji yaay boroom man dama la jàppale rek ci alxuraan ji loolu laa doon wax ñu xam ne bis bi ñii toog rek ñoo ko moom da leen gunge ànd ak ñoom ci bis bi rek bis bi nag bu neexee ci ñun la bu naqaree ci ñun la ndax nag ñun li ñu war def nañ ko mu jàngale alxuraan ban toll fi ñu war a toll bis bi ñëw nag ñu wan a wane liñ jàng ci alxuraan ngir bu déwénee ak ku mokkal comme ni ko ne ami jom mi mokkalee ku ne xam ne nag jàngal alxuraan yombul xale bu ndaw a ndaw nga teg ko ci alxuraan du ko jàngaloo alxuraan lu dis la lu gann lu dis gann la nañ ci bàyyi xel bu baax te teewlu gone yi nag di leen bàyyi xel yéen gone yi nag yenn maa ngi naan bu kenn jooy nag waaye nag alxuraan nag moo dis nag alxuraan nag moo dis lool waaye na maa ngi naan bu kenn jooy jooy nag mënu ñàkk yéen parents yi nag yéen gone yi ci yéen lañuy xool nit nag bu ko xoolee rek mu jooy bàyyi leen ko ba mu tare ba noppi ngeen da ko wax ak moom ci loolu loolu mooy ndigal li léegi sama say gay micro bi yow leen koy jox noo ngi nuyu mboolem ku teew ci tànt bi te di wax ne lii ñu tàmbali yàlla nañ ko tàmbali ci bismillahi arrahmani irrahim àggale ko itam ci alhamdulillahi rabbil alamin te rafet nañ ci njort bu baax <clears throat> ndax ni ko sëñ xaadim waxe benn kàddu rekk moo ñu fi tax teew muy alquran alquran nag du waxi bàyyi kenn du waxi sëriñu kenn waxi yàlla subhanahu wa taala la kon mboolem kuy parent d'élève te di dégg kàddu gi itam wër gox bi ñi ngi lay sàkku sa teewaay nga génn si ndax waxtu wi daa xonc ndax ku ne xam ne ne ci koor lañ nekk te bari na ci ñoo xam ne yi ñuy war a matale ji daa bari lool te incha allah buñ teelu te ñëw rek pour eggale loolu du yomb noo ngi nuyu bu baax nag Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo waral bis bi ndax li wolof di wax rek tàgge boo gis rek am na jàppal diw te Cheikh Abdoul mii mooy woote bis bi woote bis bi itam ngir feeñal li nga xam ne doon na ko def ci tuut tànk yi lu toll ci ay mën naa ne at mu jot mu woo parents d'élèves yi woo mbokk yi woo soppe yi woo xarit yi woo am di jàmm yi ñépp ñëw mu wane li mu def ci xale yi kon looloo sabab lii waaye du puukare du itam ngistal du itam wutub xaalis yaakaar naa bu doon wut xaalis dina ko defee beneen façon bu bokkut bii kon li waral bis bi mooy li nga xam ne def na ko ci dongo yi mu woo delet yépp ne leen liikat laa def ci seeni doom te lii mu def seeni doom kenn amul fayam muy alxuraan ni ko suñ xaadim waxe jël alxuraan dugal ko ci boppu xale loolu du ay pexe itam du ay caaxaan itam ndimbali suñu borom ji nga xam ne moom baaxee na ko ko loolu lay yëkkatiwaat di jéem ngir def ko te yàlla mi ngi ko ci suturaal di ko ci may ndam ndam li rek soxna ami mii rek sedd na ko mi ngi nii toog macha allah te wattu gi mu wattu alquran moo ko waral te loolu yaakaar naa moom mii rek joroon na ñu woo mboolem ñu nekk ci Sénégal ne kat am na ko wàccee téere bi yàlla bi def ko cim xelam mokkal ko na ñu dem sargal ko loolu rek jaroon na ko mbokk yi ñi ngi nuyu ñëpp di tatagal ñu fi ñëw di leen wax ne ahlan wa sahlan wa marhaban bikum haza huwa jirsatakum kon tey waa alquran ñoo xewle ñi ngi nuyu kilifa kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew suñu yaay yi nga xam ne bàyyi leen seen yitte yëpp ñëw teew fi di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal tawfiq ak taysir borom daara ji yàlla na ko yàlla defal jàmm lu man ren yàlla na ko yàlla def mu man lu ko ëpp déwén mbokk yi gannaaw loolu rek kàddu yi fi jaar yëpp ñu ngi leen di rafetlu waaye alquran dafa nekk loo xam ne baxrun la sa'ila lahu maanaam géej la goo xam ne amul tefes am na fu mu déparé waaye amul fu mu yem soo xoolee alxuraan lépp lu mu laal lekk mooy gën yonent yàlla muhammad lu tax mu gën yonent yëpp yàlla da jox alxuraan laylatul xadri lu tax mu gën guddi yëpp alquran ci la wàcc kon alxuraan lépp lu mu laal lekk mooy faree ak ngëneel kon ngëneelu alxuraan yàlla na wàcc ci xale yi baawaan ba seen waajur seeni waajur yàlla bu ñu rëccu lu ñu leen dugalee fii ñuy jàng te yàlla day wax ci alxuraan benn aaya mu ne waaqridu laa qardan hasanan kan mooy lebal yàlla bor boo xam ne su ma la ko fayee rek nga kontaan olof day wax yàlla boo ko lebalee ker dalay lay guddi yàlla boo ko lebalee ker guddi la lay fay yàlla ne kan moo may lebal bor boo xam ne wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayri tajidu inda allahi lépp lu ngeen jiital fa yàlla rek dangeen koy am kon bés bii bés la boo xam ne bés bu rawante la ci yàlla yàlla ba muy wax ci alquran suratu safi mu ne lu mu gën a bëgg inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi mooy yàlla daa bëgg kuy xeex ci yoonu yàlla xeex ci yoonu yàlla nag rawatina nga gis loo xam ne mbiram yàlla la nga jël li nga man dugal ko ci kon bés bi bés rawante la ci yàlla bés dimbalante la ci yàlla parce que yàlla wax na ci alquran ci suratul xujaraat ne wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal adwan yéen mbokki jullit yi nangeen ngeen dimbalante ci ragal yàlla te lii dimbalante la ci ragal yàlla nga gis sa mbokkam taalibe yoro daara ci koñ bi nga yëkkati li nga man def ko ci doo ko rëccu yàlla boo ko defalee doo ko rëcc kon ñi ngi ñëyu ñëpp di sant ñëpp di tatagal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax oustaz Khadim géey ak oustaz Fall ñoo ngi leen di sant bu baax ci kàddu yi fi jot a jaar di ko rafetlu di dalal sunu kilifa gi ci kaw Serigne Abdoul di rondoo waaye di waajur ci sëriñ Abdou Lahad mii di sëriñ daara bi di yégle ni rekk tàmbali tàmbali gi jot na ñoo ngi tàmbali ñoo ngi ñaan parents d'élèves yi waajur yi surtout soxna yi ñaan parents yi soxna yi xam naa ni jotaay bi ñoo fi ëpp doole sax nag ndax euh, jigéen ñi mbooleem foo woote soxna yi ñoo fay gën a bari waaye ñoo fay gën a yànji it ñoo fay gën a feeñ loolu nag dañ ci kontaan lool ndax day delluwaat ci li yenent bi sallallahu alayhi wa doon wax ni bi ko waa ji ñëwee ne ko digal ma kan laa war a gën a fonk ci sama yaay ak sama papa mu ne ko sa yaay kon yaay yi seen ju teewaay rafetlu nañ ko lool waaye it baay it seen teewaay rafetlu nañ ko lool waaye it dañ leen di ñaan ngeen may ñu tuuti rekk ndax bu ngeen dee dem ci xale yi mbaa ngeen di woo xale yi day tax xale moom xam nañ xelam li ko tënk dafa yomb boo ko woowee rek mën ngaa def ci xelam loo xam ni da koy jaxase surtout ci li ñu mokkal walla yu demee noonu waaye it bu waree tari ñu woo turam fee ci kaw fekk mu ngi woon ci biti baas bi wala ci biir nit ñi dina ko xaw a yàq yàqal kon ñoo ngi leen di ñaanaat rekk ñu amaat tuuti dal ñu amaat tuuti dal te barkeelu ci li fi nekk ci ay barke ndax jotaay bi duñu tayel di ko wax duñu sonn it di ko wax jotaay bi jotaayu alxuraan la rek képp koo xamante ni yaa ngi am looy joxe muy enveloppe wala muy ay xéewal yoo xamante ni da koy barkeeloo ci bis bi dañuy ñaan it nga bàyyi ba sa doom di tari buy tari boo jógee taxaw ñëw ci taabal ji barkeelu ci alxuraan ji joxe fi ay xéewal moom da koy gën a sawarloo إنه كان توابا إنه كان توابا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم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 maman lu mu def nii alxuraan moo ñu ko wax yàlla moo ne idaa tutla alayhi mooy idaa tutla alayhi ayaatu rahmaan xamu sujjadan wa bukiya maanaam bu ngeen jàngee aaya yàlla yi da ngeen jooy su ngeen jooy da ngeen jooy jooy kon lii wax yàlla la kon rek macha allah mënuñu ñàkk parce que alxuraan daa diis di jaaw Muhammad sax bu daan wàcc si moom da ngeen gis day ñàkk lii nga ci gërëm sax day wàcc. أرأيت الذي يكذب يكذب المتين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون sadaqallaahu al-aziim assalaamu aleykum wa rahmatullah hmm, bismillaahi rahmaani rahiim auzu billaahi mina shaytaani rajiim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 وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم macha allah yàlla lool mooy na xam mooy na xanaa yaa rahmaan amul suñu yàlla mu moo ko kii yaa maanaam bu ñu dalee ay yàlla yi na ngeen xool suñu wala ngeen jooy su ngeen mënut jooy ngeen jooy jooy kon alxuraan moo demee noonu aywa. كرفة فهم الذكر أما من استغنى فأنت رسالة صدق الله العظيم تكبير تكبير تكبير بشر ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب فجر لفي سجن وما أدراك ما سجن كتاب مرفوع ويل يومئذ للمكذبين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عزيز يوم يقوم الناس رب العالمين